ñu ngi xaar tamit wàllu curage curage fosse septique yi yaakaar naa loolu maire bi dina ko jël en charge 35 voyages la ñu wax parce que 35 voyages maire bi mën na ko jël en charge su ñuy wax wàllu opération set setal bi tamit UCG dina leen accompagner dina leen gunge si wàllu woowu que ñu mën a jox leen matériel ay camions en particulier ànd ak maire bi matériel bi muy joxe ànd ak comité organisation bi pour ñu mën a def set setal bi ñu jàpp set setal bi le 24 mai.

am tamit équipe boo xam ne dañ koy teg équipe d' intervention HLM ak Kër Soxna Baali waa Eaux et Forêts ñoom tam ñu ngi xaar ñoom autorisation pour de transport bois bi bois mort bi naa ne dès ñu def demande bi rek dañ ko diligenté pour mën a am autorisation bi si wàllu ndox ñu ngi xaar cinq citernes xam naa ne peut être compter quatre wala trois cinq citernes ak ay bache à eau

ñu jaar diligence maaw raxmat yi euh, ak njàppale offar xëy na vraiment jottali nañ ko kilifa yi pour que ñu mën a am rapidement te yi taxawaat ci liggéey bi mën a continuer parce que si carnet yi rek duñu mën a def liggéey bi wàllu commerce tamit ni mu ko expliqué bu baax ñu ngi xaar donc seen taxawaay contrôle denrée si seen taxawaay approvisionnement si seen taxawaay également contrôle prix yi crois que maîtriser ngeen bu baax sujet bi day am espérer espoir que dinañ ko remplir lu ngeen war ni ko waree pour wàllu communication donc ñu def lettre pour directeur général RTS pour ñu am couverture si wàllu wàllu wàllu wàllu RTS waaw quand je dis couverture nag du événement yi rek parfois mais même ay reportage ak yooyu yëpp yu ñu mën a def pour wax wax soxna si dundam ah taxawaayam si diine bi loolu yëpp dina si baax fi mu ne nii nit dëkk réew mi dañu laaj ay royukaay dañu soxla ay royukaay te yaakaar naa ne loolu jamono boobu yëpp mën na suñu dem mën a nekk royukaay pour jigéenu Sénégal yëpp pour xale Sénégal yëpp ba si donc événement yi xam ne ñooy am si màggal gi muy màggal des petits wala conférence des petits ak également màggal gi si boppam cérémonie officielle bi lépp ñu mun ko couvrir donc euh, pour waa waa waa Sonatel moom ñu ngi xaar wifi ADSL pour découvrir l'événement. Nous avons fait la logistique de notre Nengouba. Donc, nous avons 600 mètres carrés. Wow, à la place des turbines, à la place des chaises avec euh, Bashi peut-être, à la place, au moins une partie chaise avec Bashi, il y a 3600 m2 équipés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes en train de nous jiital euh, gouverneur ak ñi nga xam ñoo ko jàppale ci liggéey bi di sant na bu baax a baax monsieur le monsieur le maire de Touba ci mu rafet ak ci teewaayam ñun fii tey nag di def CRD Laylatul Qadr ma ànd ak euh, délégation bu jóge ci sëñ Mouhamadou Mahfouz ñu ngi doon saytu li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, bis bi nag dafay bis boo xam ne bis bu am solo la ndax nuñ koy faral di waxee rek. guddi goo xam ne moo gën junni weer alquran ci boppam wax ko foog naa guddi gu toll noonu genn guddi melu ni soxna si tàndoon ko daa ci liggéeyal way juróom ba Serigne Touba daan ci wàcc ay kaamil yu bari daan ci def ay bernde daan ko ànd ak mboolem yi def ko ay at yu bare bare bari ba woon ñu ginnaaw ren jii nag muy guddi koo xam ne bis boo xam ne mën nañ ne bi fi soxna si jóge ak léegi ban na ñaar fukki at wante itam mooy bi ñu njëkk a def ginnaaw boo xam ne soxna baa Bali wan nañu ginnaaw kon ci ñaar yooyu rek benn bu ci nekk tax na ba mu nekk bis boo xamante ne bii dafa war a wuute ak bis yi nga xam ne moo daan am moo tax mboolem disposition yoo xam ne war nañ koo jël ak administration bi ak maire bi ak taalibe yi ak famille bi ci boppam lu ci nekk lépp luñ ci daan def rek yokk nañ ko ba jàpp nañu ne buñ ci àggee bu soobee yàlla niñ ko séentoo danañ ko am noo xam dina kawe suñu njort mboolem liñ ci war a wax ci CRD bi wax nañu ko moo xam wàllu ndox la moo xam wàllu courant la moo xam wàllu assainissement la moo xam wàllu lu mën a doon rek bàyyiwuñu dara sécurité bi aussi lu lu nekk loo xam ne lu am solo la. Euh, xaj na peut-être ci sécurité bi rek de fa mënuñoo ñàkk wax ci li nga xam ne mooy accident yi accident yu bari yi ñuy ñaan nit ñi rek ñu def nag ndax autoroute bi seetlu nañ ne accident yi bari na ci trop te loolu xañ na li ko waral moo di nit ñi ni ñuy dawee xel yi bari na waaye itam gis nañ ne bari na oto yoo xam ne dañuy paan sax di gaare loolu aussi foog na jàpp nañ ne nekkul loo xam ne mbir mu mbir mu war a am la bu ñu sañoon daal ñëpp dana ñëw ci jàmm màggal ci jàmm dellu ci jàmm ak seenu njaboot kon ñu ngi sant ñëpp di euh, di gërëm ñëpp.

ak yeneen conférence yoo xam ne bu ci nekk dafa am kilifa goo xam ne moom lañ ko moom lañ ko jagleel bi ci gën a rëy Cheikh moom leen baara bu Serigne Touba moom lañ ko tuddee muy bi nga xam ne danañ ko def buñ ne ginnaaw suba la am na ci boo xam ne dañ ko jagleel njabootu Serigne Touba bu bu jigéen gi am na ci boo xam ne dañ koy jagleel euh, Cheikh Issa Dieng ndax at mu nekk itam dañuy jël kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne bi daan ko liggéeyal ñu jël ci benn bis jagleel ko ko kon noonu lañ ko toppee ba mu ba mu jeex tàkk nga xam ne kon weeru ko répp dañu ko fas yéene dundal ci ay jaamu yàlla ci ay bernde ak ci ay waxtaani diine yoo xamante ne bii maanaam mboolem julli ci Sénégal amul benn tarixa boo xamante ne bii bis bi di nga ko di nga ko wuute kon noonu noonu lañ ko fas yéene defee di ci fàttalikuwaay itam li nga wax léegi suñu wayjur bi muy di soxna Mamoussa mi nga xam ne ginnaaw soxna May moom itam liggéey na ci liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la wa bis bi euh, soxna ci moko ko ko tàmbali won ci daru Muxti magal na ko lu mat euh, jurum fukki at bu mu ko tàmbalee aussi lolou fokh na wax nañ ko wax ci ko ay yoon yu bare bare euh, ci ñaari gi nan ko tàmbalee won ñew ci serigne Falilu mu dogul ko ci ne ko dega dem ba ci ray ay gilem gilem yoy tay gi kenn xamut liñ ci ray ci ay gilem lu mu toll ñaari ginar ya ku melne serigne sëriñ sar jamu serigne Touba def nako ñaari junni ginar kon lepp lo xamne serigne Falilu waxoon ko rek teg na ci loxoom euh, teg na ci euh, teg na ci bëtam kon liggéey la boo xam ne Serigne tubaa nangu na ko ko euh, loolu yi nag moo tax itam ren yi ñu fas ko yéene defaat bu soobee yàlla le 30 mai moom lay moom moom lay dëppool ñu fas ko yéene ànd nag ak ni ma ko wax léegi rek mbooleem njabootu Serigne Touba yëpp mboolem taalib yi yëpp mboolem jullit yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa